Birane Gueye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Maro. Birane Gueye nga nekk secrétaire national chargé de la formation euh, professionnelle ca SAEMS njiitu réew Sénégal lancé chantier yi nga xamante ni jëm na ci taxawal ay classes euh, préparatoires fii ci Sénégal mu nekk initiative boo xam ne euh, peut-être li tax nguur gi teg ko mooy xeex li ñuy wax fuite des cerveaux ban jàngat nga ci am. waaw en tout cas suivre nañ démb lancement officiel. lii la ñuy wax ne classe au préparatoire aux grandes écoles maanaam euh, daara yu yu mag yi yi nga xam ne ndongo yi nga xam ne bu ñu amee baccalauréat lu mel ne baccalauréat fii ci réew mi dañuy bëgg dem étranger wéyal seen njàng Euh, ñu gis ne ndongo yooyu souvent bu ñu demee dañuy am ay jafe-jafe ci adapté wu ci dund mais également dañuy gis ne ndongo yooyu xam ne euh, réew mi def nay investissement encadré leen ci njàngu élémentaire njàngu diggu dóomu yi ba nga xam ne euh, toll nañ foo xam ne ñi am xam-xam yi gën a xarañ pour mën a servir réew mi dañuy préférer dem étranger jàngi fa buñ paree toog foofu du liggéey loolu nag état du Sénégal am ci beneen gis-gis mooy maanaam defar fii ay écoles yi nga xam ne sunu maire élèves yi ñu am danañ leen mën a former encadrer leen ci domaine yi nga xam ne mooy science ak technique euh, bu te buñ fi amee formation boobu aussi buñ paree dinañ mën a toog servir réew mi ma jàpp ne loolu lu lu ñuy rafetlu la lu noble la lu baax la euh, alors sauf que am na ci ay njàqare ak yoo xam ne danañ ci euh, en tout cas joxoñ baaraam état du Sénégal mooy d'abord cadre bi maanaam école jumtuwaay yi li nga xam ne mooy ay université mooy ay grandes écoles yi war a am ba nga xam ne ndaw ñi képp ku am bac bëgg am foo jàng ci domaine bi nga bëgg danañ la accompagner ba nga mën a dem nga jàng foofu beneen bi aussi mooy euh, encadrement yi est-ce que ñi war a jàngale ci école yooyu par rapport ak li ñu doon gisu Europe par rapport ak Europe technologie yi ñu am Euh, jumtuwaay yi ñu am est-ce que ñun am nañ jumtuwaay yooyu est-ce que personnel bi doon jàngale Europe am nañ même compétence yi am nañ même euh, xarañ bi ba mën a jox loolu suñuy ndaw loolu tam dañuy wax état du Sénégal mu def ci effort ba nga xam ne personnel d'encadrement bi danañ leen former formation ba war danañ leen yóbbu également tàggal leen bitim réew bañ am xam-xam ak jumtuwaay yi nga xam ne buñ ñëwee nii lañ doon def Europe ak lañuy def Sénégal du am uute loolu nag. ma ma fàttali ne investissement bu am doole doole gis nañ fi université du Sine Saloum université Iba Der Thiam yi nga xam ne yëpp état du Sénégal sumboon na ko après ay at tey am na jafe-jafe eggali ko wala am na jafe-jafe démarré ko donc ma jàpp ni bii nii du beneen bu ñuy ubbi rek di xaar aussi ay at ci at ci at te duñ ko gis ba pare te téye fi sunu ndaw yi briser seen élan briser seen espoir également dem uti xam-xam loolu nañ ci état du Sénégal euh, bàyyi xel bu baax a baax a baax dëgg la euh, ñooñu bu ñu demee Europe ba jàngi ba am xam-xam dañuy des foofu liggéeyal tubaab yi te waroon nañu mënoo ñëw service suñu réew bëgg nañ nag lépp képp kuy doomu sénégalais foo mënta amee xam-xam foo mënee amee njariñ boo xam ne di ko indi pour réew mi nga dellu si fii ñëw euh, mettre à la disposition du du pays mais nag état du Sénégal aussi war na am benn cadre boo xam ne day motiver ñu nekk Europe yaa woon am xam-xam nga xam ne bëgg na ñëw parce que am na ñu bëri man ñu ma xam ñu nekk Europe ñoo xam ne dem nañ jànge mais suñ paree dañuy bëgg a ñëw fii ci réew mi jege seen famille ngir liggéey fi mais malheureusement bu ñëwee ñu fi fekk tis tissu économique boo xam ne insertion bi day facile administration bi aussi seeni i baaxul baaxul euh, duñ fi gis daal loo xam ne dana leen attirer ba nga xam ne danañ mën a ñëw pour mën a servir fii ci réew mi donc l' état du Sénégal dafa am liggéey bu am solo bu mu war a def foofu jiital ba nga xam ne képp ku nekk Europe jàngi woon am xam-xam da am cawarte ñëw ci réew mi liggéey ñi nga xam ne fii dañ leen di former fii bu ñu leen former ba pare ñu mën a gis cadre d'insertion boo xam ne euh, soit ci ci milieu industriel wala ci administration bi wala ci privé bi ñoo xam fu ñu bëgg nga xam ne xam-xam boobu danañ ko mën a jariñ réew mi waaye boo fi ubbee école yi euh, former leen ba pare te mënoo am cadre d'accueil wala fu ñu mën a insérer wu risque ñoom it après dellu birim réew mën a seen talent loolu nag aussi état bi Sénégal na ci bàyyi xel. est-ce que Birane Gueye yow jàpp nga ne état wu Sénégal euh, pare na pour investir. largement pour euh, ñu am ay classes préparatoires yoo xam dañuy nekk à la hauteur comme ni nga ko waxee sànq comme yi nekk France wala Canada wala États-Unis est-ce que état wu Sénégal jàpp nga ne pare na pour investir euh, pour ñu am ay classes préparatoires. Euh, je pense président de la République moo am vision réew mi. Mm-hmm. état du Sénégal égal moo am bëgg-bëgg moo xam bëgg-bëgg bi naka la ko war a mën a doxalee et pour mu doxalin ko dafa laaj ay moyen moyens yooyu nag suñ bëggee niñ ko xalaatee ñoom mu amee noonu dañ ci war a def moyens yi moyens dañ koy uti kenn ne nag réew mu ndóol lañ yàlla def na ñi ngi am ay ressources je pense que ressources yooyu ñuy am dañ ko war a utiliser à bon escient je dugal ko fi nga xam ne dina amal njëriñ réew mi te dina mën a ñoŋ jëpp naa ne nag ay investissement yu lourd la état du Sénégal bu amee moyens na ko ci def su amul moyens na ko dem uti parce que aussi mënoo am bëgg-bëgg ba pare te doo ci def moyens yi nga xam ne moom la laaj euh, loolu gis-gis euh, la bu ñu rafetlu parce que bëgg nañ ni Europe amee autonomie ni États-Unis amee autonomie ci maanaam mbirum euh, jàngale am ay jumtuwaay am ay prof yu xarañ di mën ko def ba am compétence yooyu noonu suñ sañoon suñ ndaw yi nga xam ne aussi fii lañ dëkk fii lañ juddoo mën koo amee fii mën a jariñ suñu réew waaye boo jékki-jékkee nga am ambition ne da ngay ubbi fii ay école ngir former suñuy ndaw alors que ñooñu amoon nañu amoon nañ projet amoon nañ benn carrière war a dem Europe am euh, yokk fa seen xam-xam nga nga nga dagg ko ba pare te doo leen mën a jox liñ li nga xam ne moom lañ soxla wala moom lañ laaj fii loolu tam je pense que day doon yàq bu rëy rëy rëy te boo xam ne état du Sénégal du ko mën a rattraper jamais donc mm, je pense que ni il faut aller progressivement ces genres de réformes sont bonnes il faut aller progressivement petit petit jusqu'à avoir vraiment benn plateforme benn plateau technique boo xam ne très adapté par rapport aux exigences des nouvelles technologies nga doog mën jël ay mesures fortes ne kenn duutul génnati ko amati bac fii ngay des wala boog sama ndaw yi gën a xarañ fii laa leen di former bu ñu paree mën a servir réew mi décision ki vision bu noble la mais naka lañ koy defee euh, yëpp foofu la nekk na na état du Sénégal euh, am vision claire euh, de def ci moyens yi bien que gis nañ sunu suñu système éducatif de chaque année day am ay perturbation soit étudiants yi la soit enseignants yi la wala am na loo doxul ci système bi abri provisoire yooyu yëpp ay ay ay ay euh, jafe-jafe la yoo xam ne suñu njàng système mu njàngale daf koy daf koy jànkonteel mm, yaakaar naa nag bala ngay wax ñi nga xam ne euh, am nañ départ bu baax ay ndaw yu xarañ lañ nga bëgg leen fixer fii mais day laaj aussi nga teg cadre bu baax a baax a baax ba nga xam ne ñooñu seen euh, projet boobu ñu am kenn du ko briser dara du ko briser Euh, Bougane Gueye euh, ñu gis ni ci tàng yi ñu ngi fësal ni université Cheikh Anta bu Dakar bokk na ci université yi gën ci Afrique euh, sow jant noo ko gisee lan ngay tontu peut ñi nga xam ne mënuñ ko nangu parce que jàpp nañ ni université yi ñu ngi jànkoonteel ay jafe-jafe yu metti condition d'études yi baaxul naka la kon université Cheikh Anta Diop de Dakar di occuper une telle position en Afrique de l'Ouest waaw damay wax ne gouverner une université du lu yomb ndax université dafa rëy li mu laaj dafa bari eh, également complexe ba tax na euh, damay commencer di rafetlu euh, classement boobu nga xam ne def nañ ko ci université Cheikh Anta Diop de Dakar du lu ma bett na parce que xam naa ne aussi université Cheikh Anta Diop ñu xarañ ñoo fa nekk macha allah yàgg na am na tur te lu ne jaar na fa. donc yàlloo na mu am euh, distinction bu mel noonu waaye nag euh, bu ñu gisee aussi Afrique xam nañ ne njàng Sénégal lu mu am ay jafe-jafe ci système de la yi gën a baax la bokk ci Afrique donc loolu lu ñuy rafetlu la waaye nag du tee ñu gis ne jaf am nay jafe-jafe yu nekk université boo gisee nombre d' étudiants bi nekk à l'université nga xam ne dekkuloon li ñu prévoir woon foofu na ko largement raison pour laquelle chaque année nga gis ay jafe-jafe ay xeex ndongo yi réclamer bourse réclamer conditions de travail loolu day war ne day laaj ne état du Sénégal dafa war a jox benn orientation dafa war a jox benn fulaak fayda li nga xam ne mooy système jàngale muy université ak ci topp euh, gis nañ fi ay université yoo xam ne état du Sénégal sumboon bëggoon na ko da koy tabax mais boobu ba léegi mënul egg parce que moyens xay xëy na suivrul ay euh, chaque année dañuy gis ne nouveau bachelier yi dañuy gën a yokk donc état du Sénégal dafa war a def effort ci créer ay école grande école créer ay université ba nga xam ne bachelier yooyu dañ leen mën a caser ñu continuer wéyal seen njàng am benn damm-damm am benn rëq-rëq foofu nag la ñuy xaar état du Sénégal mais système Sénégal jàng wax dëgg fa yàlla nit ñu xarañ ñoo fi nekk boo duggee ci école yi gis ay jàngalekat yu xarañ ñoo xam ne li leen di handicapé rek mooy motivation bi dafay manqué mooy aussi jumtuwaay yi dafay manqué loolooy tax des fois ñu gis ay jafe-jafe mais bu état du Sénégal redoubler d'effort ak ressources yi ñu am pétrole gaz nañ ko orienté ci secteur yi nga xam ne ba ëllëg dina mën a servir suñuy sët wala suñuy sët sëtaat donc ñu jël moyens yooyu dugal ko ci université ak école yi parce que je crois que investissement boobu mooy investissement bi gën bi état du Sénégal mën a def ci à partir des ressources yi nga xam ne mën nañ koy exploiter ci suñu réew. voilà laal nga ko léegi di waxum pétrole ak gaz euh, ku wax pétrole ak gaz am na ñoo xam ñoo fa war liggéey est-ce que état wu Sénégal wala yéen si seen côté euh, commencé ngeen di xalaat naka la ñuy former jeunes yi euh, ci les métiers de l'avenir tey jii bokk na si lépp lu soxal euh, pétrole ak gaz comme ça euh, kuy jóge bitim réew di liggéey fii fekk na ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk mën a liggéey bu baax ci système euh, boobu nga xam ni bala yàgg dara Sénégal dina commencer di ko exploiter est-ce que yeneen ci xalaat pour tàggat ndaw yi ci ci fànn boobu bu baax a baax looloo tax daaw boo hmm. gisee grève bi ñu fi sumboon ak état du Sénégal sur le système de rémunération bi nga xam ne état bi defagum na ci benn jéego bi nga na yeneen génnee ñu sa rafetlu ko saluer ko aussitôt biñ ci génnee rek dañu état du Sénégal léegi nag beneen chantier bi mooy xam nga la mooy lan. Mhm. mooy maanaam contenu Euh, pédagogie contenu d'enseignement yi dañ ko war a changer suñu programme yi justement dañ ko war a changer mm-hmm. changer ko ngir méngale ko ak suñuy objectif de développement changer ko ngir méngale ko ak suñuy valeur yi nga xam ne suñu maam yi ak suñu papa yi moom la ñu fi bàyyi te moom la ñu soxla moom mooy suñu identité loolu nag je crois que dafa fekk ne réflexion boobu ñu xalaat ci proposer ko état du Sénégal ne ko nag léegi réforme bi ci côté bii la jëm boo dugalee ay moyens pour euh, ay infrastructure mais da nga war a dugg ci biir programme yi xoolaat ko ngir ñu mën a am ay programme yu baax yoo xam ne ëllëg yi ndaw ñi bu lañ ci formé danañ am xarañte danañ am jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla pour ñu accompagner le développement du pays je crois que loolu ñu nous sommes très en avance par rapport a l'état du Sénégal dafa laaj simplement que état du Sénégal jël courage am ne léegi nag il faut ñu réformer les contenus de programme pour que ndaw yi li ñu soxla ci xam-xam li soxla ci jumtuwaay ñu mën ko def ñoom bañ xarañ mën a jàppaleen réew mi donc loolu je pense que nii ñun wax nañ ko tey wax nañ ko tey mooy suñu chantier fi ñu toll nii euh, lépp yoo xam ne grève la sumboon nañ ko je pense que ni euh, année bii nekk na année boo xam ne war nañ ci mën a dem ci ci dal te année la boo xam ne aussi dañ ci war a profiter ñun ñëpp acteur yi concernés ngir ñu mën a toog xalaat ci naka la ñuy tëggaatee programme yi ba nga xam ne dina mën a suñu objectif de développement et également par rapport à nos valeurs culturelles Euh, Birane Gueye est-ce que mën nañu wax ni euh, ren année bi dina am dal grève yi du bari waaw wala ah, déet. njort bu rafet laa ci am. Mhm. njort bu rafet laa ci am dans la mesure u euh, li ko daan indi perturbation soit ci jàngalekat yi la woon wala ci ndongo yi bon ñun en ce qui nous concerne jàpp naa ne daaw revendication yi ñu tegoon sur la table état du Sénégal am na jéego yu am solo yu mu ci def dañ koy rafetlu bien que am na yeneen poñ yu des yoo xam ne aussi état du Sénégal jox nañu ay ay ay maanaam ay délais yoo xam ne su ñëwee loolu war nañ réaliser jàpp naa ne su état du Sénégal doxee jëm ci loolu euh, année bu apaisé la ñuy am année boo xam ne dinañu permettre vraiment ñu jàng ak dal euh, mais état du Sénégal il faut que quand mu respecter engagement yooyu nga xam ne moo ci des beneen bi ci des nag mooy comme ni ma la ko waxee léegi su euh, jafe-jafe yooyu ak revendication yu weesoo mais il faut que ñun aussi ñu xam ne école bi suñu école la mooy suñu outil de travail moom la ñu am pour tàggat suñuy doomu réew accompagner suñuy a jariñ seen bopp te loolu mooy maanaam contenu de programme yi changement de programme yi wax naa ko léegi hmm. donc am naa yaakaar ne bu baax ne état bu defee li mu a def euh, année bu apaisé la ñu am Birane Gueye euh, maa ngi lay jaajëfal man mi maa lay jaajëfal ci euh, invitation bi jàpp ne waxtaan bi am na solo lool parce que ni ngeen koy posé nii rafetlu naa ko yéen a ngi def seen participation ci réew mi. jërëjëf kontaan nañ bu baax ci sa euh, disponibilité may fàttali ni Birane Gueye mooy secrétaire euh, national chargé de la formation professionnelle ci SAEMS. jërëjëf man maa leen di gërëm bu baax baax di nuyu réew mi yëpp également ak ñi ñu doon déglu à travers votre chaîne.